asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi leen di nuy di nuyu waa Sénégal eh, di leen masawu ci coono yi coono yi nga xam ne Sénégal mi ngi jànkoonte ak moom ci fan yi ñu weesu waaye coono yoo xam ne dafa commencé woon depuis 2012 ba léegi ñu gis ci toogaay mag Sall ci bopp Sénégal ay eh, jafe-jafe yu bari yoo xam ne nii Sénégal yi ñu ngi koy dund. ñu toll ci jamono yoo xam ne nii ginnaaw bi ñu jógee ci indépendance yi mu toll ak juróom-benn fukkaat ñu gis na Sénégal mi ngi dund ci situation yi doy waar yoo xam ne nii lañ ci ràññee mooy crise des institutions moom la ci gën a ràññee mais loolu nag naka naka la mën a maanaam ñëwale Sénégal naka lañu mën a accès foofu ci Sénégal loolu mooy question yi nga xam ne laaj yi nga xam ne moom la Sénégal yëpp di laaj ginnaaw bi xew-xew yi amee fan yi nga xam ne lépp luy rafetal démocratie lépp luy rafetal ab ànd ak déggoo ak dund gu baax gis nañ ne régime Macky Sall da ko tasaare da ko salfaañe joxu benn gëdd ci Sénégal yi loolu nag mooy li nga xam ne ci wàllu démocratie moom lañ gis démocratie boo xam ne nii euh, dafa dox ba agsi fii ci Sénégal da ngay commencé ci maam ña ci liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko Sénégal euh, ba ci euh, ñi nga xam ne ñu mujj defendre nekk les moyens de notre démocratie ku mën a mettre Abdoulaye Wade ak ñaan ñi mën ñoom génération yooyu ci génération yi man ne Ousmane Sonko ñu taxaw pour jubbanti Sénégal pour taxawal démocratie gis ne kon boobu léegi Macky sàll ak nguuram ñu ngi teg ay jéego yoo xam ne nii dafa jëm ci lépp lu salfaañi suñu démocratie lépp lu jaxasee Sénégal lépp loo xam ne tamit day indi ay xuloo ak i réeroo gis nañ ne moom la Macky Sall indi ci réew mi ñu xam ne ko man démocratie nekk na mbir moo xam ne nii mbiru respect la ay loi dañu war respecté loi yi dañu war a respecté tamit yelleef ak doomu aadama yi waaye su fekkee ne nañu am ngóor goo xam ne nii nañ ko faloon ci wàll maanaam fale ni gën a rafet Sénégal muy alternance bi amoon 2012 ñëpp amoon yaakaar ñu dem ba tey ji yaakaar yëpp a tas ndax ñim àndal moom Macky sàll seen yénn ak seen seen pas-pas mooy lépp li gànkal man démocratie mooy jàpp ay opposant gis nañ ci ku mën ne Karim Wade ku mën a Khalifa sàll tey jii tey mu jóg pour song le président Ousmane Sonko loolu nag la wax ne du fi mën a am tey du fi mën a am ëllëg benn benn Sénégalais wutu mën a accepter que président Macky Sall mbir mi jëm ci Ousmane Sonko mbir mu jàll. kon ñu ngi woo képp kuy Sénégalais képp koo xam ne démocrate Sénégal yi ma yite na la nga jóg bokk ci xeex bi ñun fas nañ yéene bokk ci xeex bi ak ñu ñu àndal du wax ne Macky Sall réew mi moomu ko da ko da ko daa fekk ñu tabax ko liggéey ko joxan ko ko kon nag buy dem génn Sénégal dafa war a bàyyi réew mu am dal réew mu am jàmm. moom lañu ñu soxla te moom la ñuy ñaan waaye nag kon moom dafa décidé euh, moom ak ñim àndal doxalin nu buur maanaam moom ak ak njabootam fas yéene moom nee na réew mi du fi jóge ndax 2024 lay préparé loolu la ñu wax ne nag bépp Sénégal yoo xam ne ni démocrate nga wala jàmm maanaam maanaam moo la yitteel war ngaa taxaw ci wax Macky Sall na taxaw ci li nga xam ne mooy projet politique bi nga xam ne mooy di faagaagal ay opposants di bañ mukk dem élection maanaam ànd ko ak ay mbër yoo xam ne nii dañ ko mën a loolu nag la ñuy wax ne dafa doy ñuy woo kon képp kuy sénégalais bis ni ko tey ñu jëm suba dakaar ñu war dem fekk ci marché ba marché bi nga xam ne moom la ñu woote suba ci Dakar ak fépp ci Sénégal ñu ngi ciy woo ñëpp képp ku mënta dem fa nga nekk na nga def marché naqarlu li Macky Sall def te ñu liggéey pour pour pour résister parce que résister ak bañ la te bañ loolu lañ xamoon suñu maam ya loolu lañ xamoon suñu suñuy waajur loolu ñu xajamoon li ñu baax ñëpp loolu la ñu xamante ne muy ak bañ ak nooteel te lañ gis tey mu ci Sénégal lañ gis ci Sénégal te loolu passé woon nañ ko te loolu mun a am Sénégal duñ ko may Macky Sall duñ ko may keneen ku yàlla bind kon lii mu teg lii mu teg Ousmane Sonko président Ousmane Sonko na ko teggi na ko teggi bu ko tegg réew mi dañ dal ca kawam loolu mooy wax ji te Sénégal yëpp ñoo taxaw pour fépp pour wax ne lii na doy lii na dakk ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen jox rendez incha allah Dakar suba ci marché yi ak fépp foo na ni nii képp ku mënta dem nga taxaw naxaro li ñoo ngi de Sénégal